ginnaw buma ma ay jangat ak taxaw ak seetlu si li nga xamné moy situation politique bi nga xamné mo né ci réew mi nga xamné ne suñu candidat mi président Karim mansa Wade yalla dogal na bokku ci élection yi ñun tay ñu ngi gërëm parti démocratique sénégalais di gërëm kilifa yi di gërëm militants yi ci Sénégal yépp après nak bama bi nga xamné amna def concertation ak waxtaan si militants yi si base bi nga xamné man damay wax ne nekkuma rek le président fédération rek yem parce que man je suis au niveau national parce que lu jitu président fédération dama nekkoon le grand mouvement pour le développement du Sénégal créé ko au niveau national nga xamné tay wa waa Thiès nañu ñëw wa Dakar waroon nañu ñëw Sénégal bari na dëkk yo xamné man la xaar ci ci ci élection si juróomi nit sam yi juróom-benn nit ci au niveau national la rek kon ñun nous sommes national ginnaaw bu ma waxtaanee ak base bi yalla def ñu tégon ñaari candidat base bi teg ko ki nga xamne moy président Amadou Ba woma. ma loxo woo fi nga xamne moy mooy relais ma ak mom ñu waxtaan mu serigne mama dama am yaakar ci yow té xamna lu ngay liggéey ci secteur informel bi plus de soixante-dix mille ferrailleurs dossier bi mako yor té lu ci ëpp ci ferrailleurs déggal nañ la dama bëgg nga jàppale ma ci élection présidentielle yi fekk daf ko jaaree ci kilifa un chef religieux chef religieux bi woo ma ñu maam moom ñu ànd dem moom dafa leb tur wi ne naa ko bu ma ko waxagum ci moom lañ jaar man dem ci moom bañ toogee waxtaan nañ ma xam ne 19 candidats yëpp juróom-ñaari candidats ñoo ma ci woo te moom laa ci toogaat ma ma concerté sama base. Amadou Ba nag waxtaan nañ ci jafé jafé réew mi ma xamné ne candidat yu fi nek yop Ton nak man waxtaan nak man jox ma cër ci biir Kaolack recevoir ma ma wax ak mom ci mbay mi sama xalaat mu dégluma parce que man ku may andal ku nek dang may déglu man duma andal ni rek diko téel ay dal mba diko ko man doxewuma non ci politique musuma musuma def déclaration musuma def déclaration bama commencé politique en 2009 ba légui ne watal leen parti au pouvoir c'est la première fois. oui 2009 laa commencé politique dama xëy rek ne Idrissa Seck laay jàppale xaw ma Idrissa Seck gisuma ko dama liggéey ba Idrissa Seck woo ma téléphone ne ma maa ngi fi yónni Thierno Bocoum maa ngi fi yón euh, yónni Yankhoba Diattara non la doré ci politique. musuma jaar ci ben responsable politique ci Saloum ñew nek talibé musul am lool nak yalla mo koy may ak gëm sa bopp ak mën xaar. suma militant yi tamit mën xaar ma joggé ci. Idriss Seck ma ne ko ñëwal Saalum ñu am ay gàntal ci la ma Pape Diop ñëw seet yi ma ne ko képp ko may àndal man danga may seet yi ma toog a yow noon laa ànd ak Pape Diop jógee si ñëw ki nga xam ne Amadou Ba ba ma soxlaa moom a tàllal loxo ma waxtaan ak moom Amadou Ba nag waxtaan nañ ci mbay mi waxtaan nañ ci secteur informel bi waxtaan nañ ci yeneen ak yeneen ak yeneen ba tax na ëllëg danaa ko mën a conseil si li nga xam ne mooy ci bassin arachidier bi ci secteur informel bi parce que am nañ ci xam ñu ngi ciy ay développement kër gi rek soo ñëwee rek da am na lii mandarga ne ñun ci gerte dañ ci yëngu ñaari bascule ngi nii ci ginnaaw béykat bu bëgg a jaay gerte il faut nga wax ak bascule parce que soo waxut ak bascule doo mën a jaay loolu kon ñun dañ nekk un opérateur économique da ci yëngatu waaw man ba ma ko taalalee loxo dama ne ko man parti démocratique sénégalais laa bokk mu ne ma sa parti demul dama bëgg nga jàppale ma ma ne ko nag je suis PDS ba léegi je suis PDS waaye moom laay soutenir parce que soo demee ci beneen coalition am na quarante nangam parti quarante cinq parti mbaa trente parti yoo xam ne ñu ngi jàppale ki nga xam ne mooy Diomaye te jàppale leen ci élection yi la pour le moment tàllal na ma loxo pour ma dimbale ko ci élection yi la ma wax man na jox naa ko loxo ba ma le loxo dama ko jox loxo ne ko dinaa la jàppale ci li nga xam ne si élection yi waaye nag ci nii laa mën a liggéey man je suis un responsable boo xam ne bootuma ci ginnaaw kenn waaye nag commune ba ma dëkk am na ay responsable APR yu fa nekk ma dalee ko ci ki nga xam ne mooy Mbokuma Diouf mu nekk maire bi su ma fas yéenee dem Latmingué danaa ànd ak ñoom parce que mbooloo tasaaroo bi du njëriñ tasaaroo bi man na yàq ma ne danaa fas yéene ànd ak ñoom lu des si ñoom ci campagne bi ndax nga am ndam parce que tamit le maire de Latmingué c'est docteur ma Diouf nekk coordinateur APR parce que parti tamit soo si ñëwee fekk leen ñoom ñu ci retiré seen parti te man ñëwuma pour APR dama ñëw pour jàppale Amadou Ba loolu suma diggante ak moom la te maa moom la ñu wax xam na ko la ma wax xam na ko ba tax na loolu tamit mbokk ma ju ba mu ko yëgee yan militants yi leen yëgal ba mu ko yëgee tamit gis naa ne ku bëgg Amadou Ba la parce que bàyyi na ay yiteem ñëw fii démb ci guddi bàyyi na ay yiteem fii démb ci guddi ne ma dégg naa la nga def rafetlu naa ko su ko neexoon rëyut deful leen dafa def yëpp politique parce que mënoon na ma géem a woo mbaa ma géem a tracté woo ma deful loolu waaye dafa bàyyi yiteem ànd ak ay conseil ñëw toog ak man ne ma rafetlu naa li nga def parce que ñëw nga pour jàppalante ñun Nous, nga pour ak ñun kon man tamit Nous na ñaari fan yi des invité na ci meeting de clôture bi ci tew suba invité nañ pour ma and ak ñom dugg ci commune bi parce que il faut ma wone ñom ñoy man man may ñom bari na nak ñuma wo ci département bi ño parce que responsabilité yi bokkuñ man ci jël suma responsabilité en tant que président fédération en tant que président section waye ma ngi lancer appel si parti démocratique sénégalais nañ joxe ndigal ci suma gis-gis gis naa ne moo gën ci PDS gis naa ne moo gën ci parti bi man nag wax dëgg yàlla man maa jël suma décision ferme parce que parti bi waxagut ba léegi jomm nag min bi man na jaare si man joomul mun na yome si man bugg naa ñoom ak président Amadou Ba Amadou Ba na leen tàllal loxo ñu waxtaan parce que gis naa ne moo gën ci PDS Amadou Ba moo gën ci réew mi parce que Amadou Ba kenn du ko présenté si réew mi candidat yi nekk 19 candidats yëpp amul kenn ku ci mos a yor un de responsabilité ci réew mi Amadou Ba nekk na directeur impôt et domaine ci nguuru Wade Amadou Ba nekk na premier ministre Amadou Ba nekk na yeneen ak yeneen ak yeneen ba tax na maa ngi tàllal loxo comité directeur parti bi naam je suis un responsable nekk naa responsable gën a tuuti waaye nag xel ak gis-gis bu sori nit mun na taxaw gis foo xam ne gisewoo fa maa ngi ñaan si yàlla fii ak suba mbaa fii ak gannaaw suba parti démocratique sénégalais nga xam ne am na 500000 voix yoo xam ne ñu ngi ko denc ñu yebbi ko ki nga xam ne mooy Amadou Ba.